aboneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo séeréer bi moom daal. foto wu ma sax. Moussa nag yi mu la ñëwal yëpp yow ci dàq. bii moom. Ah. surtout man loxo yi ni mu ko defee nii. <laughs> yii Moussa mun na ñaw na. dafa mun a ñaw na moom dafa xam sama style sa di ko def. moom moom moom rek laa bëgg mën a ñawal. kon dinañ ñawal ñaw ñaw yoo am jëmb yoo xamante ne si boo ko solee damay kontaan. amul problème kon moom may ñawal. yii laa bëgg yii moom mu laa toog war a toog sax. te xoolal loo bëgg rek. te xoolal ak li rek. waxal nag bébé yow tamit. dafa sa soie xam nga lu tax. Ah. man soie jiguma ah lu tax. heure bu ma soie problème am seetluwoo loolu dañuy problème rek sama soie bu ma waxee sama soie balaa ngoon problème am damaa mel ni ko ay gaaf. waa nga man man jën laa gën a bëgg. jën waaw. mu defal la grilled fish with salad and uh, boiled vegetables. ñooñu ñëpp ngay def. waaw loolu boo ko defee ko koy lekk. kuy lekk loolu grèce fraîche anon salade farce rosse kuy lekk loolu non maanaam grill fish mooy jën bu ñu dañ koy mariner après teg ko ci grillage bi lakk ko ah, lakk jën waaw ak euh, defal euh, boil vegetables maanaam légumes yi da koy jël euh, baaxal ko ci diggante bi lay nekk après nga sotti ko en côté waaw nga defal salaat aussi loolu boo ko boole boo dafa baax lu tudd grill fish. grill fish <laughs> and salad. bool vegetable and <laughs> salad. grill fish boo rafetee ba am salad. non non non non grill fish. grill fish. waaw léegi ginnaaw léegi xoolal bu may toogu dinaa

ak sama quel quelques son rek dégg nga ah. Cheikh nag waxagoo sa soxla gis nga man li ma waxon ba tay joguma ci bo bëggee ku la fóotas da ngay tak jabar. moo gën de. waaye mën na ko la bu ñu waxee rek ngay tak jabar ay caleçon. koo xam aji mën nga ko fóotal loolu dara benn ko foto carton. Dede, c'est càmmiñam la loolu dara. càmm kii ki la Xala ki mo càmmiñu ki? vraiment waa garaaw yow iya, da ngaa kan tak jabar moom noonu la da ngay xëy rek takk jabar waaw waaw loolu de moom la moom fi ne nii ne dama ko ne jàpp fi soxna ci boppam laa yëg fi ne mais wuy ma soxna du ndax fi ne ngi du fi ne gën di jëm di gën di bëgg te man soxna si ma bëgg moo amagul man ki bëgg man amagul nee la nah, xoolal ku mel sama bëgg ko mënta am doyal yow teg nga sama sama mag ju teg nga ko bët de yàbbi ko. yow da ko yow yow kon nga solo labbe mun ngaa solo labbe noppal sa bopp. kuy dee ci àll na la gaynde rey. àll bi nag benn dee fa amoon benn gaynde sa dee naa ko gaynde gi sa bàyyi nag xale bi nag da nga am ful man ma am soxna rek man mu mënta am ku mel ni yow mais ku xaw a mel ni yow baax na nag leen naan ko boo naree am ci kër gii doom bañ am doom moom ko gën ah, a. ah kër gii ngay dema fi ku mel ni seex mi wala ndaaya foo koy waxee ci àdduna. aywa bàyyi xale yi nag yow tamit. seex la gental mel ma am doom ju mel ni moom du ma ko jam du ma xam ne ma koy def damay togg gom ba gom gu ñor ba bax ba bax ba bax may jël pour kaas ko ko xol ba mu seddu koy. ndaaya moom am doom ji mel ni moom këtt ko sax ma ko ndaaya. ni baal jëw yàlla bëggul jëw weeru koor kenn du si jëw ittaqullaaha man jëwuma la jëwuma la li may wax ne bu ma ko làkk ma ko yàlla bu ma am doom ju mel ni yow laa wax man dama amee doom bu jigéen lu ma ko tuddee dégg nga li may wax sens contraire yow yow yow yow yow xanaa ngeen ma fi jabar ju yow yow yow yow yow ma ne la gum ko deret wala man ragalu ma loolu ma loolu man. xam nga ndaayam de. ay xam nga yow yaa ngi ko xam nga sa ndox mi dugg si néeg bi. waaw yow nan la ndox mi mën a ba sa biir bëgguma bëgguma sa ndox mi mi ngi dugg bi. ma ya lan la yow. nee na xamal lu ya. ma non coow laay bañ coow laay ma ne la ndox ci ëttu mënta la ci néegam ay ci wax ko dëgg ndox mi na mu duggee ci néegam bàyyi leen sañ xoolal ndox mi si sama mat laa wi li gaay si génn ma si génn ma si naaya ma ko bàyyi du ma ko kii du ma ko bàyyi du ma ko may dara daw ma ci dara. waaye ndax yow nekk dañ ko ci waaye bàyyi kii la yow xam nga ngay toj. moo tey toj la. ndax su jéem a. teewul teewul teewul. yëngoo ti nga nag de. yëngoo ti nga de. sa ndox mën nga koo dee. teewul mën nga koo dee. teewul ma teewul. lu tax nga koy dugal sama ne. aywa ne bàyyi li ngeen def na aji bàyyi ko.